jërë ngeen jëf mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee woon ba tey rek ñoo ngi fii ci jumaay Touba ji ci espace bi nga xam ni fi la Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Chouaïbou nekk ak mboolem ëllu xaside yi di jëfe li nga xam ne mooy ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha jox na ko ko eh, bu ngeen gisee nag ni ngi toog ak koo xam ne dootuñu leen ko sax présenté muy Serigne Amsatou Diakhaté moom it di kenn ci njabootug Serigne bi waaye di kenn ci njabootug ëllu xasida waaye di kenn tamit ci taalibe yi nga xam ne dañoo def seen yitte jëpp ci jëfe ndigalul Serigne bi saa su ko soxla woo eh, Baye Amsatou mu mel ne boobu ba nëgëni ci fajar ba nëgëni ñi ngi ànd ak Serigne bi ci waajtaay ak lépp ci li nga xam ne mooy ndigalal sëriñ bi ci njàngum xasida ñu gis ne sëriñ Amsatu bi euh, suba xasee jot rek fajar gi rek ñëw na àndi ko mbokki taalibe bi yëpp ana ban jàngat nga am ci taxawaay boobu nga xam ne sunu kilifa yi ñu ngi koy am ci jëfe ak euh, jan jan euh, jan jàngat nga am tey ci bis bi ndax damay wax ne bis bi tey képp ku fi tàbbi rek te te amug yëg-yëg am nga am nga am nga am nga loo ci yëg ak ak ak ban taw tawféex moo nekk ci defal sab sëriñ li mu bëgg. bisimilahi rahmaani rahim ak Cheikh Abdou Lahad ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal Cheikh mu Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te ma ànd ko wér waaye di ñaanal mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gi yëpp di la jaajëfal bu baax sëriñ Mohamed ci liggéey bu réy bi nga xam ne yéen a koy def di tasaare mbindum sëriñ bi ak liggéey sëriñ bi bis bi bis la boo xam ne bis bu màgg a mag la bis bu réy la itam bisub tawféex la bisub xéewal la bisu jàmm la bisu dottiku ay taw feex la ci Serigne Touba ndax ndigal li nga xam ne moom la Serigne bi joxe la ko ci Serigne Amsatou Mbacké moom Serigne Souhaïbou ñu di ko def mu nekk loo xam ne yaakaar naa daaw ci heure bi defoon nañ ko te daanaka jeexit ja ci ay xéewal ba tey jeexagut ba fi ma waxee yow ni xéewal yooyu ñu ngi koy xéewloo sëriñ bi nag euh, di Cheikh Mouhamadoul Mountakha. day koo xam ne fi ay bëtam yegg ñun suñu bët yeggu fa fii fi yëg-yëgam suñ tubaa yegg suñu yëg-yëg suñ tubaa àggu fa fii pëstéefam ci suñ tubaa yegg suñ pëstéef ci suñ tubaa yeggu xam-xam yooyu nag mu dajale ci suñ tubaa mooy waral leen nekk mooy xam waxtu mooy xam heure ba mooy xam la cay suñu texe ak la nga xam ne mooy suñu dimbal te ginnaaw suñu borom dafay wàcce woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci yërmaande mbindeef yi képp suñ tubaa wuutu ko kon suñ tubaa yërmaande mbindeef yi rek la fi mën a nekkee keneen ku fi teew itam te teewal fi sëñ Tuubaa itam yërmaande mbindéef yi rek moo lay tax a jóg yërmaande mbindéef yi nag lii bokk na ci lii sowe mboolem koo xam ne dafa bëgg lu baax te mënu caa jot bis la boo xam ne tey jii ci misaal bu doon ni buñ doon diir des na ci jamono yi baree baree baree baree bari ku ci rëbb sooyoo ndax da nga jàpp tayit danga nga danga danga da nga da nga am xéewal tayit neexit wi ciy nekk mooy bu doon da koo xalaat def ko dong lu baax la waaye rawatina na nga am ci ndigal te laa tafaloo sayen bi xëy na is ni fal is nu satun fi xubóolu saani jëfe ndigalul sa kilifa dafa nekk loo xam ne ngànnaay la ci doomu adama bi rawatina ci kaw ko xam rawatina nag kilifa gu toll ne Sëñ Tuubaa nga jëfe ndigalam ba sa sosoo ba léegi mësee su sa gis koo xam ne dafa jëfe ndigal lor fekk ko ca boo Sëñ Tuubaa amee ba léegi kenn mësee su sa gis ku jëfe ndigalul Sëñ Tuubaa bu noppee lor fekk ko ca wala mu des ginnaaw kon jëfe ndigal li Sëriñ Tuubaa moom lay mel ne lu kawee kawe la la ci ci ci ci ki nga xam ne dafa joxe boppam te ginnaaw bi ngay joxe sa bopp da ngaa ne aslamtu nafsi joxe sa bopp bàyyiloo ci dara kon buñ la yolomalee rek nga nekk ci sa yitte bu la sëñ bi soxla kon day mel ne moomatoo sa bopp lool nag ci la ñu dëggee ci suñu am moom suñu soxee bu ci yokku googu nga xam ne xam na ko ci tawféex yi ak bànneexu jëfe ndigalul Sëriñ Tuubaa rawatina nag jaar ko ci xaside yi Sëriñ xam gu mu xam si am sutu ak ni muy doxee ci xasida yi ak liggéey bu rëy bi nga xam def na ko ci xasida yi ci ndaw ñi ak mag ñi dañuy wax ndaw ñi waaye ndaw ñi ak mag ñi suñu am sutu na ci liggéey bu rëy rëy liggéey boobu rek moom la ko suñu borom cërale jaaree ko ci suñ tubaa jaar ko ci Cheikh Mamadou Mountakha ba bi teg ko ci loxoom loo xam ne fu waaye toll ak fu mën a nekk yëg nga liggéey bi mën nga defee fa nekk waaye ngaa ñëw ba fii ànd ko loolu nag cërub suñu am sutu la boo xam ne dañ koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te yàggal ko ba liggéey bi nga xam ne mu ngi ko ciy def ndax euh, saa su ko sëñ bi joxee ndigal day mel ne day jëfe ndigal li waaye da koy woddi ak ak ak neex maanaam jëfe gi muy jëfe ndigal li da koy neex ba da ciy def lu man ba def ci lu mënut wala sax lu ñu jàpp ne mënu ko mu mu mu jim ko suñ suñ tubaa fekk ko ci loolu nag lu rëy rëy la loo xam ne buñ ko xamee rek buñ ko xamee rek maam njariñ li day daal di dotti ko fa saasa du du xaar ndax suñ tubaa moom di waqdi hawaaija lasiina daamoo jooju mu wax fi xidmati te loolu day mel ne fi xidmati wa habluhum maaraamoo maanaam lépp loo bëgg ci liggéey suñ Tuubaa nekk lépp looy xalaat ci liggéey Sëriñ Tuubaa la nekk lépp looy mënta ñàkk ci adduna ci liggéey Sëriñ Tuubaa la nekk liggéey Sëriñ Tuubaa boobu nag ku la ci woo dalaa dimbali kon bu ñu toogee ba yàgg sëriñ bi xam gum xam murid yi xam itam nosog mbindéef yi nekk nosog murid yi nekk gi mu nekk ci loxo Seex Mamadu Muntaxaa kon bu Sëriñ Muntaxaa ni ñu koy jàppee mooy ko yor am xaram yëg ne dañ koo war a wëgg mu jox ko ndox mu naan mu yëg ne daa war a lekk mu di jox ko mu ak ab xont xont googu muy xontu xar mi ci di ko rafetal ak di ko suural day mel ne loolu it mooy dikkaat ci murid yi nos gi nosu nosu mbindeef yi nosu mbinde euh, murid yi teg jéem tege ci loxo si moom xa lii ab xont lañ ko jàppe boo xam ne ab xont bu ñuy xont la boo xam ne day mel ne kon bu ñemee ci ay loxo rek yaakaar naa li sëñ bëgg ci ñun dana ko am te loolu la loo xam ne yaakaar naa fi li ñu fi jàng ci ay xasida tayit tayit dafa mel ne dañoo boole ñetti fetalu ñetti ngimiñ la wala ñeent ndax dafa mel ne dañoo boole xasida sikrulaahi ak alxuraan alxuraan sikrulaahi xasida te boo jëlee alxuraan lépp nga ci ñett yooyaa nga ci biir boo jëlee xasida ñett yooyaa nga ci biir boo xa boo jëlee sikrulaahi ñett yooyaa nga ci biir te day mel ne kon ñetti ñett lañ boole muy juróom-ñeent ci benn bis kon day mel ne loolu lu tawféex la ba ñu dàkko yi bisu altine bisu altine ku ne xam na li nga xam ne moom lay signifié ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon day mel ne buñ ko defee ci ëttub Sëñ Tuubaa nga xam ne Sëñ Tuubaa nguur rek day mel ne daanaka lépp luñ doon daanaka taataan daal moo ci des taataan ak xol bu set bu sell waaye lépp nag li si am di wax rek mooy ñaanale ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi te wér araf ñu fi jàng bernde ñu fi def noy guñ fi noy yaakaar joo xam ne am nañ ko ci ci liggéey bii lépp ñu ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa suñu borom dotti ko Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi te wér yaakaar naa murid yëpp loolu moo nekk ci seen xol loolu daal mooy mooy lu njëkk li ñuy njëkk a wax ci ci ci laaj bi nga laaj. sëñ ñu euh, ñëw rek ci li nga xam ne moo di liggéey bi fii bokk na ci bi nga xamante ni bërëb bi ci gën a solo la euh, muy njàngum euh, xasida gis nañ bañ julee fajar lañ ko door ñu bëggoon a xam nan lañ ko nosee ci njàngu rajas bi ci njàngum durus mi ak ci njàngum yëkkati bi mu kuréel gi nan lañ ko see fii nga xam ne lépp dana tege ci yoon xam nga loolu moom lu yomb la ci ci ci ci ci ci ki ñu jox liggéey bi muy Sëñ Amsut ndax Sëñ Amsut daa xëyut xëy rek ñu jox ko lii euh, daanaka dundam gépp moom ci xasida la kenn ku nekk nag ca la muy ca la muy yëngu ca lay woo organisation boobu nga xam ne moom la def nag moo waral lu mel ne lu daaw la gisoo ko xam xàmmee woo ko lu ren li te xam nga ne wàccaayu daaw wa moo gënoon a yaatu wàccaayu ren wi te wàccaayu ren wi gis nga ko ni mel bi dikkee fi ñu war a jàngee ak war a jàng ñi war a toog ak fi ñu toggee ak ngi koy séddaleeg yëpp dara sooxiwu ci kon day mel ne nosin woowu am na ñoo xam ne ñoom la ko sëñ bi tegoon seen loxo njiital si seex sëñ euh, seex mi nga xam ne mooy jëwrinam te miin liggéey bi lool xam ko te sawar ci suñ doon defal suñu borom defal ko ci tawféex ak déggoo ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la ko seqal ku mel ne sëñ seex jàng ak ñi nga xam ne ñoom yor liggéey bi nosin woowu fi nañ ñi war a rajas heure bi ñu war a rajas xam nañ ko ñi nga xam ne dañoo war a jàng njàngum kuréel heure bi ñu war a jàng xam nañ ko te it sëñ bi wóotewul euh, leen lu dul durus bernde durus bernde durus bernde rek la su ko defee nag fi ne ni kuréel yi war a jàng xooloon nañ ko njëkk ñuy tàmbali nga xam ne kenn ku nekk xam nañ heure bi mu war a jàng heure mu war a bàyyi kuréel bi ci war a topp nga xam ne day mel sax diggante bi ëpp ëpp différence du fi am bu kuréel bi noppee rek am na beneen kuréel bu nekk ci wet boo xam ne def nañ ko ñaari kuréel nga xam ne bu bii daaneel rek ba day daal di day daal di daaj nga xam ne boo boo teewlu da nga jàpp ne benn kuréel bay jàng ba léegi loolu lépp ci nosin la waaye loolu lépp nag xam-xam boo xam ne dafa jiitu woon bi moo tax ñu ñu dencoon ko te lépp nag mi ngi aju ci liggéeyub si yam sutu mi nga xam ne xasida yi ñor gum ko ñor moo waral mu tànn ay nit yoo xam ne da leen tàggat ci lu mel noonu bañ def ko seen liggéey nga xam ne lu mel nii bu saa su ñëwee bu sëñ bi joxee ndigal fu mu ko mën a joxee ba ci poroxaan ak fu mën a doon day mel ne day doon loo xam ne du doon lu lu ndax fekk na boobu am na équipe boo xam ne loolu rek mooy seen liggéey moo tax daanaka nekkul loo xam ne luy métti ndax fi ne kër yi yi wër kër Sëriñ Tuubaa yi yi wër jumaa ji fenn fu nekk kuréel yi leen jox leen jox leen seen i ordre leen war a saytu ak ñi leen fa war a fekk lépp defar nañ nga xam te it bu heure bi ñaan bu jotee dana a jàng ñëpp jàng muy a ngay sàkk sikkar ñi jàng alxuraan ñi ngi ci jumaa ji ñi ngi biir jumaa ji ñi jàng ngi wër jumaa ji noonu la ko sëñ bi nga xam ne ni ko ni ma ko waxee woon léegi rek juróom-ñeent la la la sëriñ bi boole juróom-ñeent yëf ndax sikkar alxuraan a ngi ci xasida ngi ci waaye xasida alxuraan a ngi ci sikkar a ngi ci waaye alxuraan tam sikkar a ngi ci xasida a ngi ci loolu lépp nag mooy seen ndey mooy umul mooy mooy mooy mooy alxuraan mooy ndey sikkar mooy ndey xasida kon day mel ne bu sëñ bi boolee sikrullahi ak jàng alxuraan ak xasida kon day mel ne lu daaw la am na leen lu mu la maar ren loo xam ne yal yàlla yàlla nañu suñ Tuubaa defal tawfeex ba sëñ ba niñ ko sëñ bi bëggee ñu defee ko noonu ba liñ ci sëñ bi bëggal ñu am ko ñun yaakaar naa kon loolu jar na aw nosin nosin woowu nag day mel ne amul benn jafe-jafe bu ci war a am ndax fekk na gaa euh, ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi jox liggéey bi saytu nañ ko saytu wiin woo xam ne dara du leen ci bett te dara du ci sooxe te it ni ko bi bëgg la koy amee incha allah